<laughs> waaw ma ne Sénégal xam nga ñun dañ war a avancer avancé nañ si boor yu bare bare bare mais assemblée nationale la ñu avancé wu seulement nag yii jàll nii damay ñaan sénégalais yi ñu baal leen ñu bàyyi ba yeneen yii di ñëw ñu kaas ko ba mu wér mais man dinaa leen wax ni député yi nii nu koy jëlee amul njariñ parti bi dey ut ay député rekk teg te parti bi du xam nit ñi nan nañu mel seetal benn affaire moo la député yi loolu ñuy def foofu rekk dafa dafa bari di seetaan ay film ay euh, euh, xawma ah voté ak marché nga ñëwaat boo lëgee keneen defaat leneen boo lëgee ñu ne kële lañ giiñ ak càcca waa gannaaw subaa ñu ne kaa ni giiñ ay faux billets wala ñu ngay xeex ko fa salle de la foofu boksu nañ fa kat nañ fa bëri nañ fa def fa ne waa loolu ay député la wala ay député da dama ne réew mi fu mu toll nii kuy député sa gàcce am nga gàcce fi mu toll ñaa fa jub rek la xam lu leen fi indi xam ñaati naat ñooy nen par jour am nañ lu leen metti mais am na si ñoo xamante ne dara méttiwut leen xamul la parce que ñooñu dañ ñëw pour xaalis rek da nekk foofu pour xaalis rek or que liggéey xam nga mooy li ma doon wax léegi ministre bi fal dafa war a tiit waaye député bii nga xamante tam dañ la dugal si ta nga ne président moo fi dugal da nga war a am looy bañ da nga war a xool kilo fi indi war nga xam ki fi indi kan la ak nan la demee ak kii la fi indi ndax dafa diggaate woon si Sénégalais yi est-ce que diggaate boobu moom moom kese la daf ne moo ko équipe am waaye nana am fula waaye am fayda waaye am jom waay gaa yi amuñu jom waay yëpp affaire Baba Ay Touré yi ñuy def yëpp ñu ñaaw la te ñoo ko da ñuy dem toflu am na loo xamante ne bu doon règlement nga taxawal duñ ko def foofu lay waxee yow sànq si arrangement bi ñuy def pour naan dialogue national ak dialogue Sambata Ndiaye ak dialogue parti par là dialogue da ngay indi lu tax ñu oo oo sëriñ pour pour nax leen ñoom ñoo ko nangu lu ma wax lu leer boobu ma kenn nga si kër yi li may wax xam ngeen ko bu baax a baax nga ñëwaat mu jël ay ay coutume bi kan la grand sëriñ lañ gis ñu indi sax ñun tamit est-ce que grand sëriñ yi dañ bokk ci coutume du ñu ci coutume sëriñ ku ko dégg xam lan la Ablaye Matar mu ngi si biir état du Sénégal d'accord nañ day liggéey Papa Diagne ambassadeur itinérant la day liggéey mën nañu dem mën nañu bokk ci dialogue bi mais ñun ñii tax ñuy wax coutume xanaa duñu si dugal jaraaf Youssou Ndoye mooy le numéro un de euh, bu coutume kenn woon wax coutume te mënoo ko fi bàyyi te bu ñuy wax jàmmi réew mi duñ te li may arrangé si réew mi euh, du ma wax ne kenn du ko arrangé mais damay arrangé rek ñu bari na dañ ma jàppee ne damay histoire ak histoire ma encore bu leen ma féetale ci histoire dama nekk koo xamante ne lii ma xalaat dinaa ko wax bu fekkente ne nag arrangé wu la bu la neexee nga ne dama kii nga xam naa ne nit ñëpp duñ bokk gis-gis mais lii am mooy réew mi fi mu toll dafa laaj pour ñu toog man toog moo li àll indil na ma beneen affaire muy réseaux sociaux réseaux sociaux comme ni ma boy bi rectifié woon kaw sociaux yi yàlla mën na ko indil sax parce que man lu ma bëgg a wax naa ko te kenn du ma si wanal tous xam na lan man si wax jël ma yóbbu si kaso bi te bu ma génnaatee maa ngi si yow waaw parce que am na loo xamante ne man réew mi kenn du ko tong tong lii ñuy wax mooy que ne nañu àndaat am riw kenn du ko yàq ëpp naa yàq réew mi tey jii dañu toll suñu ne président de la république day wax na ne pétrole am na fi gaz am na fi yéen a ko wax man d'accord na loolu rek laa bëgg a si réew réew kontaan mais na nañu yokk suñu yaakaar ñoom ñu yor nguur gi parce que ñun Sénégal lañ Sénégal lañ pays bu pauvre la d'accord mais bu yàlla indilee pétrole indil ñu gaz indil ñu beneen matière boo xamante ne da ngay waaru waaw bon nañu bëgg réew mi gis xale yi ne leen fexe ba xale yi comprendre ni pétrole bi bu ñëwee fii lañ jëm fëgal lañ toll nii la ñuy demee nii la ñuy dikkee man loolu la d'accord Sénégalais yëpp am jàmm kenn ku nekk dund ba doyal yàlla may ko jàmm ju bari ñëpp lii di euh, euh, pétrole bi fii ba ba ñuy euh, xelli walaat si voilà rek laa wax wax dinaa si dugal pétrole parce que sama yaakaar foofu la ëppee pour xale yi am li ñu bëgg ñoon liggéey nañ ba bàyyi xamal xale yi ñoo war a am liggéey. eau xam nga eau mooy si kaw wala déet eau ndox la mais eau itam dinañ ko wax eau eau eau waay waaw auteur <laughs> d'accord nga yàlla mii nga xamante ne moo ñu dëggal euh, ñu dégg lool suñuy nopp. sénégalais yi di ko dégg togale yi di ko dégg ak euh, ñii nekk ci réew mi yàlla na leen yàlla yëkkati yàlla mi dara teewul moo am suturaam moo xam ni mu koy joxee mais yéen ak nu mu banee demee rek yàlla na leen yàlla dolli taxawal parce que parce que xam nga lii dafa neex ci réew soo gisee ñaare euh, euh, nit ñi seen bopp comprendre leen parce que da di fekk loo xamante ne dafay defar génne ko coppet fekk ñepp bi ci seen bër ku nekk ay wax ku nekk indi sa xalaat dana wañi mer xamulo dana wañi mer mais tay gi tay li nga def ni paa yi nga jóge fële ba ñëw fi yow ak sa patron ku mënta doon kilo yi kilo yi ah, ah, ah, tuabe yi nu mënta tollu ya nga yàlla nga yàlla nga ko am wala si kenen kenen am si kenen am kenen am mais li ngeen si am kenn ku ci nekk sa papa ak sa yaay ak sa imam am sa yàlla defar leen may leen ñu àgga euh, euh, toog ak Seyduna Muhammad bokk moom benn aljana yàlla leen yàlla aar dool leen sutura dool leen suturo bu wër barka salaatul fatiha yàlla na yàlla dab jàppal leen